léegi nag njaga suba te njaga njaga njaga oro waxaale na teere mais 10 millions 250 mille mooy seen différence mooy jëloo Omar loolu Omaro moo ko wax man du samay wax 250 mille mooy seen différence donc man su ma di que mais man attends Mariasine mi may kër yi di maye oto yi Mariasine miy def lii def naa nga dafa baax dafa tabe mu ne wax mais attends moom mu dëkk Dakar installé wu fi di vivre normal léegi moom amul leen lu mu yéene ay ñoom Armand ak ñoom Amady ak booy yi toog nii fenn fu mu leen yéene fu dul maanaam mbambi loor Mbambilor Mbambilor maa ngi dégg Omaro naan 15 minutes sax laa def sama diggante fii yaa may dégg donc 10 millions Omaro nee na 30 kër la ci jënd 30 kër ci 10 millions 200 2 millions peut-être 250 ou 2 millions 2 10 millions 500 mu ne waaw ça super ah di kër ci 10 millions ah far yàlla def dëgg gi feeñ. ndeket Pape Mbaye mi mu waxaaleel ba pare. Mm. Pape Mbaye moom aussi dafa obligé moo woo waa suba teel parce que boobu Pape Mbaye dafa bëggoon a maanaam def benn jackpot jackpot mooy comme ñoom Amaro ñëw nañ waxaale te jënduñu bu ko waxee ñoom suba teel day jàpp ne suba teel day ñëw jënd wala mu fay prix bu ëpp doole ba mu jaay looloo waral coow li daal di sulee ko bi ñu ko toppee ba topp nga ci lañ xamee dëgg gi ndekete Amaro jëndagul terrain. Mm. pàkk amul suuf fi ñu taxawoon di ñoo ñoo porté plainte parce que ay terrain jàmbur la ay këru jàmbur la ay bornu jàmbur la ay birugu jàmbur la ñooñu dañoo tiit jàpp ne dañoo jaay seen terrain moo tax ñu jug porté plainte commandant bi def na ci joué na ci rôle bu am solo parce que lijjanti na yëf yi fii ci laa mën a toll léegi nag jusqu'aux preuves à la contraire bu ma weddee rek ma teg audio yi. d'accord bu ma weddee rek ma teg audio yi voilà. waa waa suba waaw moom moom nee na la nee na Pambay borom teel rek. moo waa suba teel moo woo suba teel. loolu loolu Pambay gis naa ko mu ne waa ko woo. ñoo ñëw ñoo ko ñoo fa ñëw. waaw ñoo fa ñëw waaw moom nee na Pambay nee na. kon foofu waxal moom da ngay leeral foofu wala. voilà damay leeral damay leeral damay leeral damay leeral damay leeral non damay leeral man ragal man damay leeral man ragaluma la may wax dama ne pambaay moom boo ko gisee xam ne. Oh, dama ne pambaay moom boo ko gisee. jubut dama ne pambaay boo ko gisee li mu wax. jubut dama ne. pambaay dama ne pambaay moom li mu wax. jubut dama dama ne. moom mi génn dama ne. dama ne déglu ma pare da ngay déglu. da nga ma laaj dama ne. pambaay mi gën def interview. boo dégloo avant man may xam benn preuve xam naa ne Pape Mbaye mii jubut non déglu ma expliqué la dama ne parce que boo ko dégloo di nga xam ne kii jubut parce que carrément ay terrain jàmbur yow ay terrain jàmbur mais dama ma ma tontu dama ne man ma li may wax dama ne waaw waaw d'accord ay wala si d'accord xam nga lu jur tool yëpp lan la. lan la mooy tooñ. ku mooy man ànd ma ak waale waa kër waale fii taxaw rek dafa dara du fa jaar loolu mooy loolu loolu mooy dëgg gi beneen bu sox mooy jañaar. waaw ji nga borom teere yi Pambay ak promoteur yi nekk côté Gouram ak ñàkk yëpp ku ne xam na ni Wally Seck fondement këram kër bu yeewoo fondement kër mun naa jël dix cinq mille hectares séddale ko loolu dara. Mm. problème mooy Wally da ko teg bët lu Wally di may noonu cent millions du dara. non dix millions la de. non xamuñu non dix millions la terrain. waaw waxaale bi non non si ma la xam nga xam nga ki yeewoo si building nga yeewoo si karokaas boo xuloo moom dof la mun na nekk quoi dama ne tey exemple tey bu fekkee carrément sëñ Bada man dama ànd ak Wally di am di may publier si Wally sëñ Bada sa yoon nekk si. waaw ah, léegi da mooy soxor ak ñàkk gëm seen bopp gëmuñu ne waale mun naa jëndloo may ko ay nit. Bambilor. dama la sëñ Ba. dama nga déglu maanaam déglu mi. Mm-hmm. benn kàpp boo fi nekk muy waale. te li nga teere yooyu da ngay lekk man ko fekk. waaw lépp da ngay lekk. teere yow sax mun nga see am. da koy naan moom sëñ mun nga see am. problème mooy yow yaa ngi défendre ñoo xam ne carrément te si kër gi seet nañ dëkk am ñu mbir baax ñii tabax ñu seen ay miir bu jub. nga bëgg comparer sama koo xamante ne si biir la yeewoo réew mi waa ba fi kàpp hôpital yeeg tëbëseeg màggal gàmmu yi. li fii cas usage am yëpp directeur directrice boo fi woo mu ngi wax vocal même waa la ngay woo mu décroché léegi nag promoteur yi fa xale yi ndax demee ñoo xam ne amuñu sax mënta bu normal solo ñu lu rafet sëñ Bada bi ko xool nga yërëm yaa ngi ay téléphone bu baax de. ay téléphone yu baax laa yor de. bala moo njëkk a tooñ. xam nga bala njëkk a tooñ. Hmm. bala bala ñu dem dama ko seet am na benn live mu dugg dal dina si waa quoi naa ko amee tout bàyyi la am na am na am na lu bari caa non xam nga ñëw non tey de war naa ko bare. tey de du ma sori tey de du ma sori am na du ma sori. parce que tey de ku koy jënd c'est le king de la musique sénégalaise bu jaayoon tey micro mu yor ak scène bi mun na jënd dix terrain kon xam ko nanguwul li jënd terrain les problèmes mooy ñii. maanaam ñii ñoo gëmul ni ñii ñoo gëmul ni Sénégal am boo xamante rek non si ñii ñoo gëmul ni Sénégal artiste mu defee ne. jënd terrain jënd terrain yi bari. gëmuñu ko léegi amul. xam naa waa Sénégal yàlla may na ko teraanga jox xamuñu dimbali ko dimbali boo xamante rek la preuve mooy. xamuñu xol bu rafet micro bu yor rek. 55 millions lay jar te terrain yi 100 millions la. wallaay 5 millions ñii dana wala nga ne eh, coowal terrain bi lu bëri dañ ci war a leeral lan nga ñu xam lépp mais naxaate yi ñoo feeñ quoi li ngeen doon wax da ngeen jënd terrain te jëndoo leen terrain bëgg <laughs> mais yàlla boo ko yaral boppam mais 10 millions 500 ngeen koy waxaale 10 millions 250 mille moo dox ci diggante bi yar lu mm. dafa ñaaw booy bu jóge ci Matar. waaw non exemple euh, euh, pas Matar sax quoi. booy bu jóge fële Barito maa ngi koy mu appel sama rakk la. booy bu tënul ñu. non non xam nga xam nga man non non xaaral man sawaay man jullit la. sama frère la man maa ko yar caaro yi. yëmbale nag may dëkk caaro yi. ñun lu ma sën ko ñëw ku ma tey. moom man maa ngi waaw d' accord mais ku ma respecté la parce que daf ma respecté. Mhm. non te d' accord ma ci. sa moromu góor de kenn du ne ko dama lay duma. kaa ñu xeex daal moo gën a wóor parce que on sait jamais. mbaa la mbetteel mën na am de. yow eh, ba du ma sànni sama yoon eh, man d'accord ci mi def tey d'accord ci suba te ni mu dugg ci soobis loolu du soobis mënul soobis soxor comprendre dama koy conseiller mu teggi tànkam mais tey euh, Pambay laa mën a sukkandiku li mu wax ak barito ñoom ñaan ñëpp te leen lu ne analyse naa wax nii Pambay tey moom jaaykat la rek tey buñ gisee buñ ñëwee ay xale ñëw na ko dañoo jóge ci benn euh, labelkat te mu xam turu laaj boobu moo ñu yónni pour terrain nga jaay Wally Seck dafa ci bëgg ay terrain day jàpp ne moom Pambay jaaykat la day jàpp ne en fait. Euh, waaw euh, li Omaro ñëw ne daf bëgg vingt terrain ñoom itam bu ñëwee au moins dina jënd dix wala vingt. mu mu am ci dara waaw mu am ci dara li mu wax mënul demul mais am na ñu mu leen yebal ku ñu wax ndongo xaw ma mu yóbbu yóbbu leen ci terrain yi comprendre nga am na ci léegi filmer bi bi bari ko di filmer. gisuma fa ndongo. Mm. kii astafurlah gisuma fa Pambay. Pambay waaw parce que image am génnul benn yoon. Omaro bi bi filmé tamit gisuma Pambay de. kii rakku Pambay te Paa ko mag ci image. waaw gis ko ba pare ñu wane benn oto ne oto Pambay la bi ñu filmé Pambay foon taxaw Pambay nan la fay taxawee mu waxal li mu wax ak ba pare di kilifa moom muy kilifa muy ay nit ñëw ne ko dañoo bëgg a démentir. wan ne Omaro li mu wax lu dëgg pour ñu filmer fii Pambay taxaw. Mhm. Barito taxaw di wax ay naka su noonu di wax ay ñàkk euh, wax lu ñàkk kersa naan Omaro li mu wax du dëgg nangam di wax lu ñàkk kersa euh, ki nga xam ne moo di euh, Pambay di kilifa wax Omaro taxaw foofu lu muy filmé loolu xam nga dèjà yow yoonu maanaam. kon ba ñuy filmé Pambay nekku fa mais Pambay nag gis na leen ci bureau bi ñu ñëwee mu génn gis leen ñu taxaw ci oto ñu wax ko li ñu koy wax mu gëm loolu comprendre nga yebal leen ñu dem ca terrain yi bañ demee nag la ñu wax Pambay ak li ñu def. du benn mais bi vidéo yi dawee ci internet bi la Pape Mbaye doog di comprendre lan mooy cause bi. il sa comprendre man dañ koo nax moom nangu nangul sax dañ koo nax parce que day ruus na la dañ koo nax mais dañ koo nax dañoo gis maa nam parce que dañ ko ne dañoo soxla ay terrain di woon ñoon exemple li mu wax il sa comprendre nga. loolu mooy problème bi il sa comprendre nga. mais tey Pape Mbaye bi bàyyi too dugalee vidéo yi dafa génn démentir kenn mësu ko génn mu génn comprendre nga Omaro. bi mu dugalee mat na 4 jours 5 jours àdduna yëpp gis ko ñëpp reprendre ko tey bu nekku nekkuloon dëgg wala exemple waxalu Omaro lu dëgër këj tey day génn Omaro lan moo tax nga vidéo samay terrain te waxante wuñu lu leer kon déjà bu doon tool barito li mu filmé terrain yi démentir ne Pambay nee na jaayul Omaro amul dara kon du génn di wax comprendre nga nañu wax te dee ñun ay kilifa lañ te ay nit lañ te dañuy déglu xel booy bi moo def moo tooñ nañ wax te dee man koo bokka ndey ak baay bu tooñ danga ko ne moo tooñ waaye sekk mii tey bu defoon erreur dama naan ko Mariatine bëgg naa la trop ba fi bëgg yem mais juum nga il se comprendre nga nit bu juumee pour nga pour nga jàppale ko ci àdduna danga koy wax yaa juum Barito dafa def erreur bu rëy parce que amul droit dem di filmer terrain jàmbur te amu ci avis parce que tey bu ñu ñëwoon taxaw Pambay moom ma filmé loo dañ ko naan ana preuve yi la Pambay waxee ne moo la filmé loo te moom génne na ay preuve tourné terrain jàmbur te waxu ko ko nit dañuy wax dëgg est-ce que comprendre nga booy bi ni mu engagé showbiz du showbiz est-ce que comprendre nga day sànq boppam sànq ay waajuram booy bi itam toog moom mii ni mu duggee showbiz du showbiz moom tiktokeur la comprendre nga prouvé wul dafa perte live am raté plan B plan A nekk plan B man plan B plan A laa nekk dafa raté live am xam nga lu muy def mu dugg showbiz mu dugg showbiz showbiz parce que lépp lu ay sos la. ak business business ak showbiz du benn moom day business dañ koy fay muy wax yóbbu nañ ko kaso gi xaalis. yóbbu nañ ko fay moom laa la wax moo laa mën a xamul showbiz. barke alxuraani karim lu mu la wax suba dëgg may ma tuddi may ma may ma ñu rek may ma abara nga jël may ma waroon na këf may ma tuddi may ma tuddi may ma tuddi may ma tuddi may ma tuddi may ma may ma may ma tuddi may ma tuddi ah, may ma voilà merci li laa bëgg comprendre nga kon ñu jóge ci wàllu terrain yi mooy Omaro kilifa la voilà am na lu ñu mën a wax Omaro kilifa la kële kilifa la li ñu wax tënk wax nañ ko pare Barito moo ñëw yàq lépp ba pare Barito moo ñëw mënul yàq dara sax parce que Wally lu ne mën na ko ci àdduna nee na la na ko jël parce que xolam na ko fay waxuma xaalisam de mais yàlla xol lay fay avant xaalis xaalis ay lu ndaw la ci àdduna noonu ku nekk ko bëgg mais li gën a am solo ci àdduna mooy xol bu nice boo barke alxuraan bu sa xol baaxee ci àdduna nga yéene ñëpp jàmm di gëmm lu bëri di muñ lu bëri yàlla mën la andi sax sato comprendre nga mais tey showbiz taxu noo ci duggee tey kii barke alxuraani karim xamul showbiz mënul showbiz mun la wax lenn ci showbiz lu may xaas nit wax nit lu bon mun la wax ne te nga teg ko benn son mu xalaat ne son bi lii la fii la war a duggee fii la fii la euh, guitare waroon duggee fii la accord bi naa xamu ci dara moom li mu na xam mooy saaga nit jaxase nit ñu jox ko weccet mu wax ci nit wax lu ñaaw taf te ñun duñu kaay duñu tiktokeur ñun ay ay ay kilifa lañ dañoo structure comprendre nga yor ay éléments lu toll quatre éléments yoo xam ne ñoo leen di fay salaire chaque mois mhm. man teel laay wax ñu ngi may dégg samay booy lañ non attends yabu ñu ma yabu ma leen comprendre nga mais kon ñun dem ànd ak koo xam ne moom la yàlla àndal ci oh, showbiz moom la yàlla def koo xam ne moo may ma rek comprendre nga muy Wally Seck xol yàlla xol lay fay te yàlla nee na xol bu rafet boroom mun naa ko jox lu nekk ci àdduna mais ku nanguwul ba ba ngay dee da ngay sonn ci àdduna ñun boo ñu xoolee li ñu mel barke alxuraan xam na ñu ngi sant yàlla te am nañu koo xam ne barke alxuraan yàlla bëgg na xolam te lu mu am jox na ko bokk bokk na ko jaamu yàlla du xool ku sant Seck Wally Seck xool ku sant Seck lay jox du xool ku sant Diop képp kuy bannu aadama di doomu aadama ci àdduna barke alxuraan day xaafartëgam jox la wala mu jox la ba jeexal an naa Wally barke Seydina Muhammad may dégg du ma bàyyi fen barke maam Cheikh Fall ñu fubali Dakar Sacré Cœur barke Cheikhul Khadim ay gel xamul leen ñu romb sax taxaw daal di paas lañ bëgg waaye joxe ba jeexal ci otom fubal la demoon fubal yi mu joxe ba jeexal barke maam Cheikh Fall juro maa ko ne patron yor naa 30 000 mu ne ma jox leen ko paas barke alxuraan fàtte na ko sax moom. joxe ba jeexal kooku mooy waal yi day joxe ba yor dara otom dem ba encore fekk naa ko banque yoof mu taxaw joxe ba jeexal barke alxuraan gaare gaare xame mu otom may dem sàmm man sama mën na ma seede ah. may dem. Kaolack ci benn xew ay guddi ay 19 heures mu gaare foofu yónni poko ci Gàmbi pour mu génne xaalis xaw ma ko xaw ma jour boobu damaa kal sene taj taj kal sene ma geesu mu ne ma nii ma ñëw mu ne ko oto bi kan la mu ne ma Fall foo jëm ma ne ko damay dem Kaolack mu ne ko loo ci Kaolack mu ne ko damay dem Kaolack benn kii mu yëkkati xaalis bu bari jox poko mu jox ma est-ce que comprendre nga kooku noonu lay defal ñëpp ci àdduna li muy fay ci barke alxuraan waaye li muy fay ci ay ordonnance te xamuñ kenn xamuñ toll hôpital yi waxuma mama jaaga yaayam soxna ay dara waxuma ko. d'accord mais kooku kon tey ci àdduna ci Sénégal muy doomu Sénégal muy ndamu Sénégal tey muy sagu Sénégal tey. man pour man dañ ko war a jox cër respecté ko mais pas muy def lu baax. pas ay détails. loolu ba foofu ay détails di ko wax lu bon gaa. jërëjëf li ñuy wax lu bon xoolal da koy yokk. barke alxuraan waa lañ mënut wax ji téere bi téere bëri nii wax nii. barke alxuraan moom yëngal baal yi parce que xam nga tax nitu yàlla la. ilaale une minute ma jox dëgg bu dee dëgg rek la ñuy wax te yàlla dong tax de 1960 à 2024 Sénégal musta am artiste star planétaire bu mel ni son excellent président Wally Seck mooy social ba am na ay dukkoon ay kilifa yoo xamante ne ñu ngi si réew mi tëdd Wally moo yor seen ordonnance yor seen dund yor seen santé te kenn yëgul séddee bi ñuy coow di yuuxu ne ku ne di wax bu ko tiñeen Wally te Wally waxul amuroo wax séddee boo par force président di ko jënd parce que koo xamante ne ku ne xam na ni lu muy xëy def si tabaski rek. bu ko téewoon loxoom mun naa am dix de con sec ku mel ni ku mel ni Wally tey bu génnee am idée ne daa bëgg jëndal ay musiciens am terrain mais boo ant ak moom mais boo ko mais boo ko bëggul war nga ko mën a encourager xam kii nit la. loolu c'est un c'est un geste de reconnaissance beneen bu sob carrément tey point yi nga xam ne carrément tey ñooy wër di ti di tiñal Wally di tiñal Omaro omoro Gueye loo ko mën a waxal Sidy Diop da ka war a gërëm xam tax loolu. xuus dafa jàppale Sidy si carrière am mu dem ba xamul lu fu mu jëm mu ñibbi kër baayam kon nu six mille problème ñibbee kër baayam kon nu Ndeye Ndiaye Balla yaay ñibbee kër baayam kon nu Mara ñibbee kër baayam. kon nu njàpp ñibbee kër baayam. te ñun nu ñibbee suñu kër baay. dama la ah day ñëw. dama la dama la dama la dama la dañaar ñun dañoo nekkoon si benn yoon. bu mu sos ñun dañoo nekkoon si benn yoon yoon bi métti trop bëri ay xaaxaam te ñun yoon bi ñu nekkoon tey ku ne xam na ne yoon boobu du yoon bu baax kon ñii bu ñu ñëwee daa war a changer yoon mais pas ñu topp suñu yoon ñii yoon bi ñu nekk nii non non da ngay déglu ñii yoon bi ñu nekk nii baaxul sëñ Bara sëñ Bara bu taalee laay fam rek du song Pape Diouf du song Sidi Diop waalee song te waalee mi ngay song ay malam yi muy yar si kër gi ñoo la gën barki Sëriñ Bamba wallahi azim sa askan ma waxaa la ko encore sa askan parce que askan daj ay dàll waali moo leen gën waali moo leen importance rôle waali seet si réew mi waali rôle bi muy joué rôle premier ministre la rôle ministre de la jeunesse la. rôle président la mooy di ay sénégalais te yàlla dong tax. waaye nag réew mi yéen da ngay respecté. waaw waaye laa carrément bara ñu ne yéen. waaw alxuraan dañuy reyante. bu dóoree d'accord d'accord jërëjëf Idaly jërëjëf euh, jërëjëf si problème ah Bara kàddu yi gars yi yëkkati ban ban ban ban sentence daa bëgg a tukki ñëwal ñëwal farama leen. visa barki Serigne Bamba doom visa. doom visa de. waaw ma xool ko man. waaw. non bu la loolu Idaali bu la loolu. non bu la loolu sëñ Bara. ah Fara Bode. sëñ Bara bu la loolu. sëñ Bara bu la loolu. dèjà dèjà man waaye xamu ma sax may far baal leen ma rek émission moo mel noonu la sëñ Bara baa ma téye ko fii nii sax waaw. ma wax loolu. wala comédien yi muy wax léegi comme ñoom dañu wax ba fii ci biir waaw wax pare léegi da nga may bàyyi mu wax non da nga euh, parce que da ma wax sànq mm-hmm. euh, ne ma sama taxawaay dëgg-dëgg fii ci tele bi comme un chroniqueur ah. am ñu ne ma tele boobu de euh, télé Fara Mareen la mm-hmm. kon donc man ci benn côté damay jàpp ne sax est-ce que gars yi nekkul dañ ma bëgg a dugal mu demee noonu bref léegi ma ñëw ci wax ji mooy que ne man dama yaru dama am yar am teggin mhm. bana yaru woon ñoom bi ñuy wax bi nga ma déglul bi nga ma ma xam ne kafoo mhm. damaa toog déglu leen ba mhm. noppi yaa xëy ram mulaati bu dee benn minute wala deux minutes nan nan tëj seen seen gémmi rek waaye daanu ñaari audio